feeg yéen a ngi teg seen tànk fa ko borom ba gërëmee lu mbooloo mi tuuti tuuti mbooloo moomu la yàlla fat kam min fiatin qalila galabat fiatan kasiratan bi idnillah wallahu maa asabirin ci xadis buxaari ak muslim anas ibnu malik radiallahu taala anhu nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi yoo xam ne kum daje ci sa xol da nga yëg neexitu gëm yàlla neexitu gëm yàlla ci xol nag day lu am solo ndax su demee ba am ci xol bi mooy woyofal lépp ci cër yi jamono yoo xam ne yëg nga ne def jaamu yàlla yi diis na ci cër yi xamal ne neexitu ngëm yàlla gi des na ci xol bi jamono yoo tëddee ba guddi sedd bi metti nga dégg ñu noot nga yëg ni ci ndox mu sedd nga war a jàpp nga jóg di jàpp ca ndox mu sedd ma yëg ak woyof lool aku cawarte xam li ngay def xam ne loolu lenn la ci cafkal ngëm yàlla jamono yi ñu demee ba tàngoor wi metti mar wi mën a metti lool ak xiif bi nga mën a jàpp woor jëlale naa sax koorug ramadan waaye nga mën a woor koorug ngàtt nga boo xam ne naafila la boole ko ak yëgug cawarte nag ci koor googu ngay def xamale loolu la lenn la ci cafkal ngëm yàlla gi waaye jamono yoo demee ba yiñ farataal ci yow soo koy jóg di def yi da mel ne ku yanu ab saakub suuf mu diis gann ci cër yi metti lool su jubee nga ne nañ gaaw def julli gi ba féeteeg sun tëccu niñ koy waxe xamale bu boobaa neexiitu ngëm yàlla wi des na ci xol bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàq yii kum daje ci yow da nga mos neexitu ngëm yàlla da neex mos neexitu ngëm yàlla ngëm yàlla moom képp ku ko am ku nekk rek lu neex la waaye nag dara dana neex ba noppi même ci ñam yi sax am na ñam wuy neex waaye mu dugg ci gémmiñu koo xam ne du neex ci moom ndax fekk na dafa simburu gémmiñ desabul dara wala buy lekk dara lu neex sax day mel ne dafa wex ci moom loola nekkul ci ñam waaye ci jëmm ja jëmm ja moo wérut loolu nag loolu muy dalee gémmiñ ba du sawar ci lekk noonu lay dalee xol bi ba du sawar ci def jaamu yàlla yi du sawar ci def lu baax moo tax mu ne bi ci jiitu mooy yàllaa ko yonentam gënal ko leneen lu dul moom ñaar yooyu yàllaa ko yonentam ko leneen lu dul ñaar yooyu mooy tomb bu njëkk ku muy bëgg ci nit ñi itam day fekk ni ngir yàllaa tax mu bëgg loolu mooy lan mooy su koy bëgg ni baaxe nim nangoo toppi ndigali yàlla yi nim nangoo bàyyee tereem yi loolu moo tax mu bëgg ko wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah sa jàpp ci diine ji mooy tax mu bëgg la suy bañit nee na lay tax muy bañ mooy yàlla kese mooy tax lu bari ci nit ñi rek ku baax fi ñoom mooy kala defal dara ka baax fi ñoom mooy koo xam ne boo yëkkatee sa aajo ñëw ne ko damaa soxla nanga mu fajal la sa aajo ñu ne kooku ku baax la waaye xooluñu ndax ca yeneen yu baaxee ca des yan taxawaay la ca am diine yàlla ji ban taxawaay la ca am pas-pasam di jaamu yàlla am ak toppam sunna ay yeneen jikkoom yu rafet yi ban taxawaay la fa am su doonoon ku sàggan ci yeneen yi ci des yépp waaye bu yëkkatee aajoom jox ko rek mu ne ah diw sàngam de baax la waaye loolu mooy nat loolu du nattukaay bi faj aajo jullit yi lu baax a baax la ci jaamu yàlla yu mag yi ci la bokk waaye nag du mooy lépp am na yeneen yu nangam nangam tegu ci nangam tegu ci ba agsi ci yooyu su yooyu amut su la àdduna li ci biiram àndoon di tagg itam lu tax mukk nit ki yeyoo ak tagg kon la muy bëgg ka muy bëgg wala la muy bëgg yàllaay tax ndax dafa baax ci yoonu yàlla dafa baax ci diine ji moo tax mu bëgg ko ñetteel ba mooy mu bañ baña a dellu ci kéefër ak bokkaale ak lépp lu ko nuru comme ni muy bañe ku ko jël tàbbal ko ci sawara suñ taaloon sébbub sawara muy tàkk ñu ñëw di jël doomu aadama bëgg koo sànni ci biir nee na na ngay bañe na ngay gàntoo ku la ñoot bëgg laa jëme ci kéefër wala mu jëme la ci bokkaale gàntool nu raw noonu kon ñetti mbirangoo na bëggee yàlla ak yonent bi nu mu bëggewul kenn ku muy bëgg ku nekk ci kaw suuf si wala lu muy bëgg lu nekk na yàlla tax na bañ kéefar ak bokkaale ak bidaa ak lépp lu ci yóbbu doomu aadama ni muy bañee ku ko bëggoon jàpp di ko tàbbal ci sawar kon ñetti mbiram bokk yoo xam ne benn bu ci nekk euh, bu mënta ñàkk la ngir nit ki mën a mos neexaay bi nga xam ne ngëm yàlla neex na foofu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bi ab sew sewal gi ci biir ndax daf ne nga bëgg yàlla ak yonent bi nga bëgg leen ñoom ñaar la ñoom ñaar nga bëgg leen noo bëggewul kenn baatu ñoom ñaar boobu nag bul jàpp ne foofu bokkaale la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mas naa am ku taxaw di xutba daal di julli ci yonent bi sant yàlla julli ci yonent bi daal ne ku topp yàllaa ko yonentam texe nga ku leen mooy ñoom ñaar bew nga yonent bi sallallahu wa sallam ne ko bi sal xatibu ant yaa bonub xutba loolu ko yonent bi sallallahu wa sallam wax sab xutba baaxul ndax lim ne ku leen mooy ñoom ñaar foofu nag leeral gi fi am moo di fii mu ne ku leen topp ñoom ñaar topp leen ñoom ñaar ñëpp dafa munta ñàkk boo ne woon mbëggeel gi damay bëgg yàlla waaye boolewuma ci yonent bi du sotti boo ne woon yonent bi laay bëgg waaye boolewuma ci yàlla du sotti kon ñoom ñaar ñoo taqaloo moo tax xadis bi nangu ñoom ñaar bi mu nee nag ku leen mooy ñoom ñaar bew nga dañuy bañ nga déggee ci ne ku mooy kenn ki te moyoo ñaar ñi déwoo wax bu xóot la day bañ nga déggee ci ne ah ginnaaw ñoom ñaar la wax kon mën na maa mooy yàlla topp yonent bi kon duma bew déedéet foofu demewul noonu kenn ku ci nekk boo ko moyee rek bew nga boo moyee yàlla bew nga boo moyee yonent bi sallallahu alayhi bew nga waaye nag bu ci mbëggeel faw nga bëgg yàlla bëgg yonent bi mu door a doon bëggeel bu sotti moo tax fii ñaar yi mën naa wax ne ñoom ñaar waaye fii mënul doo wax ne ñoom ñaar fee moom kenn ki rek doy na mooy yàlla gi kenn ki rek doy na boo mooy yàlla alkane dikk na boo mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alkane dikk na kon koo ci mooy musiba la ci yow